la délégation bi nii mooy indi fi mu ne nii. dafa ay ay univers. ay yeneen yu ñu tawee la ala. wuyu la ko war a yore ci ak. wala nga jël fi macha allah. def ay mbokk yi. jërëjëf. waaw ñu ngi koy xam nga man lépp loo xam ni ci àddina wooteel nañu ko président Macky Sall. damay jàpp ni maa ca war a jëkk maa ca war a looloo tax yàlla euh, le ministre Ndeye Saly Diop Dieng dajale jigéeni Cap Vert ñu wuy si ko mu war cee wane càmmeñam xaritam xam ni wax naa Ablaye ne ko fii ak cinquante ans histoire dina ko si Sénégal bu ñu jëlee Dakar dafa def benn pendage mairie Ndakaaru Ndakaaru moo ko daa moom Ndakaaru nag li bari fekkee rek dañu ko teg ci yoon Ndakaaru Ablaye Diouf Sarr mooy waaw loolu fan nga ko teg Pape Lamine doon na maire Ndakaaru docteur Samba doon na ko Clédor doon na ko Lamine Diack doon na ko Mamadou Diop maire Ndakaaru làmb ku njëkk a doon doon meeru Dakar romb ak yéen daal dellu si waat Mamadou Diop nekk na ministre de la santé nekk meeru Dakar nekk meeru Dakar nekk meeru Yoff nekk na ministre nekk meeru Yoff nekk na futur maire de Dakar bu ànd ak dogal yàlla. Ah, waaye nag gis nga ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa Yewwi Askan Wi bi ñu def démb daal di investir kii di Barthélémy Dias moom uh, mooy candidat mooy candidat bi nga xam ni moo am moo Abdoulaye Diouf Sarr mooy candidat bi fàttali nit ñi Samba Gueye Clédor Sall ak Lamine Diack ak Adama Thiam ak Mamadou Diop kooku moo nuy Abdoulaye Diouf Sarr moo nuy fàttali kooku waaye nag démb gis nga xamante ne mooy mooy leader bii di Pastef Ousmane Sonko ah, leader bu Pastef Ousmane Sonko def na benn ci investiture bi daal di ci gërkati ay kàddu yoo xamante ne ñu bari ñu werante démb ba tey si tax. waaw xam nga weranteeg coow amul solo. xam nga fas bu ñu takkee jëm ca course ba kenn ku ne pee ngay jël waaye fas wi raw grand prix chef de l'état day daw fas yi daw daw lu ñu daw Ablaye dafa daw li fas yi daw ma ne fas wi raw grand prix chef de l'état day daw li fas yi daw daw lu ñu daw Ablaye Diouf dafa daw li fas yi daw daw lu daw. père xam na yoo xam ne foog nga pour nga jël cinq minutes pour mën koo décortiquer waaye nag ñu bàyyi la rek nga daal di tàggatoo ak mbokk internet yi nga xam ñu nga lay seetaan à travers Univers Info TV duñ jël sa waaw di leen gërëm di leen sant jàmm mbégte mu rëy moo jëkk a jiite daayiratul kiraamu sëñ Babacar Si mook sant seen bàyyi Ousmane Seleb ak Koura Dieye Mbow kon tey ki woote jiite jigéeni Sénégal jiite jigéen ndakaaru mooy Adja Ndeye Sali Diop ndakaaru la dëkk ki muy dalal di Ablaye Diouf Sarr ndakaaru la dëkk ndem ndem delloo ñoom ñaar ñëpp ndem dellu lañu. waaw man kaan bi kaan bi baax la kaan bu bari baatin. gisoo kaan bi maanaam man. maroo la te maroo la kaan bi maroo la. man dama maroo ma suis maquiste man maquiste laa man man maquiste laa ma suis maquiste waaw. Macky le président Macky Sall mooy sama président mooy sama xarit mooy sama soppe su bàyyee politique ma ba dootuma politique ci àddina. góor papa jërëjëf jërëjëf.